بدأت بالفاتحة المعصمة وسورة البقرة المكرمة وآل عمران وبالنساء خير الخلق والأصحاب في لا أزال كالسحاب شل على محمد في الحال رب البريات وفي المعاد إني تواصلت بسر المائدة فبلنا الخدع وخير فائدة أشكره شكره ولا أزال دهر زاقه أشكر ربي على ما قادا لنا الخديم شيخنا فانقادا حكمة الرحمن لا تحدد ولم تكن ترجع ولا تحد ناجيت من قد نزل الأنحام يا بني ما تجيس الحامات بحرمة الغد شف الماضي أفوش بالشرعات والفرات شل عليه ربنا على الدوام ولي أجاد بالمراد والمراد يا ربنا بصورة الأخراف ما لعني بجعل الخف انصراف ونجيب القدوس والصلاة جميعا من موجب المراد على النبي شاكب الوسيلة أدم صلاة تهب الفضيلة وآله أقل الفراخ والرشاد فبلنا المراد من غير النفاد يا ربنا بصورة الأنفاد الأحزان كف جميع شر أنخيان يا ربنا بصورة الانفال كف جميع شر أنخيان قنا غزابك علاية الدنيا وفي القيامة معا يا ربنا بصورة توبة زمرنا وسق إلى حاجنا إلينا وأتنا بالمرادات معا في الحال والمعالي بمعاك سواك لم يمت ولسقيم أنت المميت ربنا والمقيت بجاك من سيقت لح المحامد من اسمه محمد واحمد رحمن وعافمة الغد الأمين وابلنا ما نرتجي في كل حين ووالد الخديم قبله منا وأغلف كل بريان بنا وابلنا ما نرتجي فيه فأنت عالم بما نقفيه وبلمن قتيل زنسانا الإيمان والإحسان والإسلام واغفر ذنوبنا واغفر أخطاء من قد قرأه منا أو كتبه شم شلات وشلام شرمدا على شفي المسلمين أحمدا وآله أهل التقى وسقبه وكل من قد جاء مؤمنا به شيخ بامبالا واخبرهم جماجي sëriñ bu mag bi moo gën junni allah Cheikh Bamba la wax borom juma ji sëriñ mag bi moo gën junni allah maam daam yaa bëri njariñ Xaadim Xaadim maam daam yaa bëri njariñ mooy baayu sëñ baara nañ tagg Ahmadul Lamin mooy baayu moom la nu may sirul ma soot xar baax la feesa ma di gunuut bàyyi baa kollam baatin ba jaaxal na Kajoor Sëriñ Baara Mbàkke ma jaar xam na Kajoor moo tax ñu fal ko lan ca biir boo ko Cissé ma ngay bëngal ne kuy lu mat ci xarnu bi fajaa jomoo ca gën a gaaw lu wax waraama mu waaw ngay fal di fali ci lu gaaw sëriñ Baara Mbakke mat naa ragal ci xarnu bi ku soppu maam yi sëriñ aji aboo mat yaara jugal taxaw ñu magal borom Tuubaa yëmbal laay fajaa jomoo ca gën a gaaw fajaa jomoo ca gën a gaaw fajaa jomoo ca gën a gaaw fajaa jomoo ca gën a gaaw wax boroom ni waaw day fat di falu ci lu kaaw sëriñ baara mat naa ragal ci xarnu bi day wata jàngul arab ta man na xaatu du ta suuf moom am arab ta man ñoom ak na moo ko la mi ko ay bépp noon ku dégg ñaan gi ne amiin ngir yàlla naatal xar mu bii doon nay Sulaymaan in the bar. Borang borom kaddi gi ak Mbàkke tuba borom belai, yëmbal laay woy Ndakaaru ku fa ragal Mbàkke grâce que Serigne Abo Madiana borom tuba yang belai, woy ku sopp Cheikh Abo Madiana juga koy tax ñu màggal borom Tuuba yëmbal laay Cheikh Abo Madiana Cheikh Abo Madiana Cheikh Abo Madiana baraay mo du ndam si Aziz sama may sunu bar bëgg Bamba baa ngi muritoo yooneen baa nga Makka Cheikh Bamba Cheikh Baara buy bindu baa ngi donc ziar baax Cheikh Mamadou Mountakha ziar baax Cheikh Mamadou Moustapha di ziar baax Cheikh Abou Madiana borom Touba Yëmbal donc koy ziar ñu suñu sëriñ ñu suñu lépp Mbàkke Bàlla ñu ngi jégul bu baax ndax ab coono la dungoo waaye teraanga ji nga ñu defal gis nañ ko ndax lii da nga xaman ñun ci kër gi rek la ñu bokk moo waral bi ñëwee rek nga daal dine nga jël micro bi kon Mbàkke loolu yëg nañ ko dëgg yàlla da ngay jël ay gesineer donc ba mu jekk nga jël jox ma ko ci jëmi Sëriñ Tuubaa ak ay parfum dal lu ne kon Mbàkke bu soobee Sëñ Tuubaa ñu ngi jégalu foofu bu baax dina yëgal suñu bis bi nga xam ne ni incha allah dinañ fi ñëw beneen ñëw bokk rek bii le 2 décembre bërki dem rek maa ngi woon suñu bàyyi ko wax le 2 décembre sant Serigne Bara wàccal Mbàkke yëpp incha te ngeen xam ne seen bis la maag suñu màggal sax bi incha allah war bi leen di ñaan baax yàlla yàlla guddal seen fan bi jaay chaman ba ma xam ne safara suñu xol seen lool ñu ngi jaar ñëpp di ziar bu baax sëriñ Ibrahima Madior sëriñ Ibrahima Baye suñu bàyyi ñu ngi ziar baax jaay dégg naa yàlla doon toog rek barki soo xam ne sama xol seen lool suñu bàyyi Malick Gaye ñu ngi leen ziar baax jërëjëf allahumma salli وخلي احرم يا زاد المنار الكرم شيخ بابا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا كن صحينا بالمصطفى مكرما في نبي المصطفى الذي تراب له صلاة وسلام مع ابتداء كل رمت من المكرمة في نبي سري الله شيني وسلم من يا ربي على ختام الانبياء المجلد الرسياء امام المعظم شيني وسلم يا ذا النقمه على رسول رحمته واخبار نعمته سبب كل نفس شيني وسلم من يا سمدي محمد وعليه والأمد وكل زيتان سوما كي نبي هذا المخاوى الخدمة من دام الخدمة سرداب تخدمة بيا منير كي نبي زكا خيار الأربع زكا المنير الأربع سكن سبيل طلب طبيب أخلص شين بيسري الله باب الهدى نايل مدى مول ندى لسدى ما يرضى باب الهدى والكرم صلاة وسلام على رسول الله jërëjëf sëñ Tuubaa رب العالمين بك الكاهل هجرت Your body's all your daughter's

أزال لم أنعم لم يفيدي على ماني لا والآن مما يشاء من أرام عذابا لبلكورا منشأ وجهي رزفت الله رب العالمين صلى على في الملائكة المكمل عن روحنا والجسد صلى الله عليه وسلم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 النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وخلفائه وخدمه ومن هدى بهدي إلى يوم الدين بقي في التاو لبق جريد بق تعليم لبق دلت جول النيو نيو إسلام دي asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. di di leen siyaare bu baax a baax di leen ndokkeel ci tawféex ji nu yàlla defal tey ñaan yàlla mu mayaat nu ko muy tawféex fekk bi sëñ bi muy màggal. am tawféex yu wér am tawféex bu fekk ko am tal ko man ci def ci dara loolu yàlla buur bi rekk moo ko man moo ko sañ am na ñu àndaloon daaw ren fekk wuñ wala ñu fekke mënuñ wala taluñ te lool coobare buur bi subhaanahu wa taala rekk la kon ñu ngi ñaanal suñ mbokk ñu àndaloon ñépp màggal daaw te ren ñu jiitu lim gi day xaw a jafe waaye ñëpp ñu leen di ñaanal te ñaan yàlla barsàqul muminin di waaru Seydina Muhammad ñu doon seen kër ak di seen Xaadimu Mustafaa xam ne ñooñee dem seen dem ga ibra la ci ñun ndax waaraate la ñun bu am solo seen ñàkk fayda yóbbu leen seen ñàkk xel yóbbu leen ñàkk xam-xam yóbbu leen ñàkk gàllaaj yóbbu leen ñàkk fu la yóbbu leen coobare borom moo leen yóbbu kon nag ñun ñoo fi des ñu xam ne dig bu matul moo fi baax waaye du suñ full du suñ xel mu rëy du suñ gàllaaj du suñ ay coalition yu bari du suñ pexe yu bari yàlla la soob rek mënu fi te saa bu ñëwee incha allahu rabbi yàlla na yeex ay kon ñu waaru ci baax te defaru suñ toogaay bis bii kat bis bu sant yàlla ci sant boo xam ni wax naa ko ci bëccëg jaamu yàlla dafa am yu ci ànd ak féexal bakkan lekk yu neex ak sañse bégle ak tudd yàlla yu bare bari kon mooy màggal mm-hmm. bi ko sëñ bi defee sax li mu niroog tabaski taxoon na mag ngi du dugg tabaskiwaat mu woo leen ne leen tabaski kon day doon bidaa lu ma fent waaye lii kon tudd leen ko màggal moo tax baatu màggal ñëpp ci moom lañ ko njëkk a duggee dégge waaye daa niroog màggal ndax tabaski ak màggal tabaski day feet gu daggan jaamu yàlla waaye jaamu yàlla daa nag féexal bakkan bégal njaboot bégal sa bopp sañse lekk naan kulu min at-tayyibaati wa'malu saalihan lekk leen ci yu tey yi te jëf jëf ju baax aay bu jafee firi la ustaas boo jëkk yëpp ci baax sëñ Tuubaa li mu ko tekkee moom ku lu mintaay boo xamaloo saalihan nee na bu ngeen lekkee ba noppi bu leen yàq ñam ñu ne ko lu yàq ñam mu ne reesal ko ci mooy yàlla waliyaas bilaay kon maa ngi sonn suñ bopp di leen ndokkal di wax ne kàddu yi daa mënta ñàkk rek waaye ustaas Seyni tënk na màggal gi ak lii temu màggal bi def naa waxoon nañ ci mu raw dorayaahin bi sëriñ Saalix joxoon màggal gi ñu koy saytu ci ah, mbirum xam-xam ak saxaafa islamiya ñu ngi jëloon tem seen mawdoo mooy al wahdatul muslimin benn jullit tem buñ mos a def it ma nga ca ndax loolu rek moo mënta ñàkk def na ko ci arabiya bu neex te saraax bu jub ni ñu ci aaya alxuraan muy àddina am solo muy eh, yàlla nee na bu leen tàqalikoo xëccoo bu ngeen xëccoo tàqali seen doole néew ah ca surdu Anfaal kon wax na fa ci indil nu addis yu am solo yonte bi ne jullit yi jullit yi ñëpp dañu war a mel ni benn euh, ay birig bu ne tabaxee ba raax leen euh, duutoo xàmmee euh, fu birig nekkoon tabax rek ngay gis wax na jullit yi jullit yi dañu war a mel ni yaram yaram bu ci benn cër mettee cër yëpp yëg ko ci solidarité boobu nee na jullit noonu lañu mën a mel ci euh, waxeen bu leer fasaa boo xam ne ñi ko dégg dinañ am euh, yóbbal buñ mën a yóbbaloo ba déwén wax ci indi bay ay dalil wax ne siñ bi waxoon na ne euh, bu leen noonu ku ngeen dégg muy wax kalimatu laa ilaaha illa ku muy denc génn ci kàddoom rek yéen jullit yi wala ñi ma ñi may digal bu leen ko def noonu te dañuy wax ne arab yi ku digle mbir yaatare aksu ba kon sëñ bi bu digle bu leen noonu kuy wax asadoon laa ilaaha la kon dalaa digal ne la mbokkoo ko kon suñuy jullit yëpp mooy suñuy mbokk tubaab bi bi mu ko laajee ne ko sa njaboot fu mu tàmbalee dana ko fu laay laa ilaaha illallaah wa Muhammadu rasuulullaah tàmbalee mu ne ko fu mu yem mu ne ko fu mu yem dafa lay yem kon sëñ bi moom yaatal na jullit yëpp la jaboote te bis bi wane na ko ñëpp fi ñëw eh, lii ñuy soññe rek soññ saa bopp sant leen ndax daa mënti ñàkk saa saxir eh, wax na ci sëñ bi ndax ku woote ñu wax ci yaay kan wax nañu sëñ bi mooy kan ba eh, indi ñu sew sew ca ndakaaru leeral fa ne am ñuy defe ne daa wooroon bay dog waaye guddi la woon waaye am naa lu ma lu ma la ci yokkal ndax ba mu duggee ci néeg ba nee na xet gi mu doon xeeñ xasaw na ba ëpp doole ba mu koy nett nag xetu néeg ba rek doyoon na euh, maanaam ku bëgg a euh, tumuraanke ni ba sonal ko waaye euh, la ca doon sew-sew lu mu siixlu damu moo newoon ca ga ca néeg ba te xamuñ ko te waaye yàlla musal na ko ci ba mu dem ba ñëw <laughs> gaz boo xam ni nu ñu koy wax ci wolof xaw ma ko waaye euh, ci na ci natt yu ko yàlla natt waaye mu jom ji euh, mu mu surmonte lépp ba tey suñ xéwal gi am kon ci taw tawféex lañ nekk li ñu war a def nag fexe ba yayoo ko fexe ba mérito ko li ñu sëñ bi liggéeyal lim ñu fàggul ci xam-xam ilmu naafiq limni ñu fàggul ci wërsëg lim ñu fàggul ci amaana si sécurité limni ñu fàggul ci sopp nu am na ko ma ñaana ba ne bayre waaye bayre moom sëñ bi señ bi rek am bayre moom ci bo tudé tuddee sax am nga bayre <laughs> yooyu ñaan ko euh, waaye lépp la lu fàggul kon nak nañ fexe bu mérité ko moy yeyoo ko mooy mel na bëgg ñu mel ko té baña mel ni ñu bëgg mel dama koy wax toujours né señ bi néna bu leen tàqalikoo ko li ma leen tànnal wala tafaarux maxtiire lakum abadan ndax bu ngeen bàyyee li ma leen digal nag coono ak naqar ak yi mbir rek ngeen dajal waaye fi ma leen teg moom bu leen jaaree jàmm rek ngeen di wus li mu ñu buggal nag mooy bëggante soppante te topp yàlla ndax sant yàlla gii kat nag jaamu yàlla gu metti yu tar moom la doon def def ko mag ba woote bi sant yàlla bi kon loolu rek mooy message bi soññe waaye oustaz Saxiir leeral na oustaz Seyni yàlla yàlla yokk seen xam-xam euh, sëñ Ibra jàng na sëñ euh, Mor Ndiaye Baara sëñ Maguette sàmm ak euh, sëñ Daara yi ñëpp daal macha allah tabaarakallah waxtaan nañ li war a wax yàlla yàlla fay leen jiw jëw ni yi seen soññe dégg naa ko te it sant naa leen gërëm naa leen ndax yéenay kër gi. sëñ bi laa doon wax bu ñëw doon kenn dafa ñëw yéene kër gi ko àndal ñeent fukkaat li sëñ Malick di wax a ah, xëy na ah, samay sikki bari na waaye muñal ngeen ma ko ba sàngal ma ko ba suturaal ma ba xoolewu leen ma ko ndax nit moom dafa xaw a doy waax waaye man itam maa ngi am mbégte ci doyloo leen te euh, euh, seen jëf sëñ bee koy fay te it ndax luñ mës a sase rek ca sëñ ba tey nag kenn mënu leen dama ci am euh, tawféex di leen sant di ñaan yàlla sunu kilifa gi fi ne di jiite muy Cheikh Mouhamadou Mountakha tawféexam ji ma am muy euh, pas-pas euh, yàlla banaasa ñu ci bañ connecté ak moom bu mën a dox ndax Cheikh Mountakha jëmmi pas-pas la waxam pas-pas la jéegoom pas-pas la diggam pas-pas la jaaram pas-pas la kon jamono ju nekk sëñ bi mooy xam xami indi martabatu xilaafatu xadim duñ ko mën a wax fii waaye lu garaaw la du lu ndaw mais kim ñu indil nit ñi defe naa pas-pas yolam yi xëy na moo tax yàlla mooy def lu ko neex sañ moom oy tànn xam waaye jot naa ne pas-pas yaa tax mu ñu jëmi pas-pas ku bëgg pas boo xoolee sëñ Muntaxa di nga am pas ndax moo nu njëkk tool fuuf te moo nuy mujj njëkk xëy mooy nuñ mujj wàcc te moo nu gën a mën a muñ kon nag nañ muñ te leen muñalante suñuy ayib te royo ko ci moom rek ndax dana nee na sax xool leen ma kon bu ñu ko mënta xool mel na moom ñu xool ko jéem a def ci ni muy mel ndax euh, day rek euh, te day naqar yëpp koy naqar nag xool yi dama ana basarun mistukum yooxaa rek waaye lii dal ñëpp koy dal lii naqar ñëpp ko waaye sant la koy def moom ne feex sëñ bi rek la kon nañ ko roy te di jéem a tegu ci yoon wa tey moytu li muy tere ndax li muy tere kat fii ak feneen yam ku ko bàyyiwul ngir moom ba rus bu yàlla ñëwee moom di nga ko def sëñ Saliou daan wax ne yàlla moom buur la boo xam ni képp ku ko fàtte dala fàtte fàttali waaye comme ko rek ndax bis bu bopp metti woon téewér wala tànk rek koo waxatee te yàlla rek ñëw yàlla moom kenn du ko fàttaliku <laughs> boo boo nee docteur boo nee kii boo ne kii bàggee fa fenn fu mett bu gën a tar te yàlla um yàlla rek kon yàlla ku mu fàttaliku nga fàttaliku kon nag ñu fàttaliku faskuruni askurukum faskuruni wala takfuruni kon maa ngi leen sant di leen gërëm di ñaan yàlla màggal gi yàlla nangul nu ko tey it ñu yàgg koo teewe te lu ci waay yéene yàlla dafa la ko ci du mën a ñàkk rek ni mu ko àdduna tëdde yenn kilifa yoo xam ni dañuy yónnee ay yitte ay ki teranga ak ki délégation ci kër gi te seigne touba dana waxone ne len leen nar ba xorom sa asgor la teral da ngay naan taala am bis mu am bis ba nga fay ko kon fay ga nak moy tàmbalee ji di tud diko sant diko ñaan yalla ba ma sha allah kon ñi déggut te bok njabot gi fédération bay ñi jage buñ japp ne tuddu gi dañ leena ndax dafa xaw a jafe bismillah ngir naa ko waaw dafa am ñoo xam ni dañoo am xaas maa ngi koy wax ak dongo yi fan yëpp ñu ngi fanaan di waxtaan ndax dafa aaj ñu waxtaane taalibe gi ñu xam ko Euh, xam luy taalibe xam lu ñuy war def waxtaan nañ démb ci su jóot lu ciy war ak ku su jootul sëriñ bi ku su biir maxala ku su biir daal yooyu yëpp ñu leeral ko ñu doon waxtaanal waaye àggoon nañ ci ba ci ñaan gi man leen bu dee sëñ bi ñaan gi mu leen yoral ma jël sama bopp misaal li ma leen ku ne aslam nafsi ci aboo madiyaana ñaan gi ma leen warlul nga xam ne moo ko deful yore la àq moom bis bu ma xëyee naa ko def bala maa tëdd lu ma sonn sonn feebar naa ko def ndax àq la loolu mooy seen gi nga xam ni faaw ma jàngal leen ko muy dog boo xam ni sëñ bi ma ko teg te faaw képp kuy yewwoo yaakaar aboo madiyaana man lay yàlla teg ci bunt bi moom taw an aw karaan dama ko jàng moom ndax bu ma ko deful am na ñoo ma yore la àq waaye ñaano xaas nag boobu mooy ba am waaye xaas ba nag ah misaal faat sàmm mais xane xam ne ba xaalis may ma xaalis bu jaaxlee wax ma bu ma soxlaa wax ko ko kooku leneen lañ séq waaye jaral bàyyi sa neelu ba deux heures wala trois ser nag nga jóg jàpp jàngal ko bun yaa loolu plaisir loolu moom xaas la du am ñëpp bokkuñ ci ñu xamee ko noonu bokkut ak leneen la loolu contrat la donc am na ñu ñëw ñële sëñ bi loo soxla wax ma ko nga ne yow nga ne ko loo jaaxle waxuma ko kooku beneen mbir la bokkut ak am ak xaas kon nag lii ñii may tudd seen ay xaas lañ dañuy def ñëpp yi def def leneen ñoo tax ñu leen tudd yàlla yamalewut nit ñi ba ci yonente yamale sëñ Tuubaa mii da koy yëkkati teg ko ca kaw xutbu yi axtaab yëpp kon ñii may tudd nag bu leen ci gis seen bopp ne sëñ bi damaa tuddut waaye ñoom dañoo def li ngeen def ba noppi def lu ma defut kon moo tax ñu leen sant di leen gërëm bala maa àggit loolu sax ma beral nuyoo sama jarbaat bi sama wet Seydou Mbodj moom itam di sama xarit bu yàgg defe naa nit ñu bari mi nañ ko kër gi eh, ay tënk-tënk rek mooy tax bu ngeen ko gisut ndax eh, Sidi Maxtaar Kunta magam sa eh, nijaayam sama xarit la ñu ànd lu bari ngeen xam ko mu ñëw mu ngi tiñu toog sama wet maa ngi lay nuyu Seydou yoy jox sa wàccuwaay leen tiit sama mbokk ndax soxna màggat Mm, Samba sama bàjjen boobu dama ma doon denc sama xarit ci yeneen yu bëree bëri bi ak mbokk yu bëri ma yem ci foofu ndax dañu seq mbokk daa bëri kon sa maa nuyu di la jox sa wàccuwaay nu nuyu waa Ndiassane gépp xaar gàmmuwaat incha yàlla may li yiw Ahmadou ah ma tàmbali ci gërëm yi rek te ngeen jàppale ma ci baax a baax a baax a baax ndax dafa jafe lool te metti lim daa metti lool wala day wax ne ku lim doo matal mën ngaa matal sax waaye da nga du mataloloo euh, li duuf ci nag xaju cin li ah kay mën a cee xaj waaye xajanoowu ci kon ku déggul kenn rek ñëw déy ko léegi ma sant ko ndax am na yéen ñëpp ci seen kuréel yi ñu bokk ci kër gi bokkuñ ci kii te sopp kër gi di leen jàppale ñooñ dañoo mat a sant ndax ki la faale ki faalewut yàlla sax yamewu leen yàlla mi bind moom xam dara wàññi ko dara kii xëy di ko tudd kii koy gon di ko tudd yomb li leen kii ko faalewut kon ndax asamaak doomu aadama kon ma sant sama benn wëllëre sama xarit dëkkandoo eh, di leen ko seeral Ahmadou Hott ministre eh, dëkk ci Touba Yeumbeul di suñ dëkkandoo muy minit ku baax ci noonu yónni na ma délégation bi màggal gi yëpp eh, muy mm, chef de protocole la sekk ak beneen fàllu mi nekk ci cabinet ak euh, kii ñu yónnee ma teraanga ju mat teraanga euh, ci bisu màggal bi kon ñu ngi koy sant ko ñaanal di ko euh, sant bu baax baax ndax fonk gi ak jàpp gi te di leen ko seeral ndax yónnee teraanga ju mat teraanga monsieur ministre Ahmad Aidara kon ah Amadou ku baax la ku yiw ku ku woyof nag ku ma des ma wax soxna Codé ne ko boo fàtte sa tur nag neel xottu gerte ma des na macha ñu ngi koy sant bu baax <laughs> Amadou ku baax la ak tey di nuyu cabine ba yëpp nag ñoom suñu Thierno laaj moo di wen ñamandal ñëpp ndeysaan ndax këli yëg ak nag mënoo leen a yamale yaan yàlla fay leen yiw te may leen seen bëgg ci barke sëriñ bi dafa bëggoon ñëw sax maa ko may ne ko am ngay ngànt waaye teewal boppam mu la bëggoon te daaw defoon na ko ñëw ba ci man Euh, di sant it euh, sama euh, njaboot mu de kër gi seen njaboot muy Thierno Ndom Ba lim daan def def na ko def naa sëñ Malick dam jaar lay ci sëñ Xaadim wax na ma ko ak sa yi ñu fi indi ak juróom ak yabal euh, boppam ak mbokkam ñoom ñëpp Ousseynou dafa tukki waaye sëñ Thierno sëñ Ousseynou Thioune mii xam na liñ def ci teraanga def naa ne nañ fi euh, ay nag indi fi ay xéewal indi fi euh, ko ci sëñ ak liñ doxal sama diggante ñoom kon Thierno ñu koy sant di ko seeral njaboot gi Aziz yow mu dëkk ak Adja Mare mi bokk moom seen langue ñu ngi seeral Thierno lam daan def ci teraanga def na ko ba yokk ko yàlla yàlla yokk mbiram wax naa ko léegi ñu mu yónni doon leen yàgg nañ 82 ba tey 41 kon euh, du benn bis te ñu ngi ànd di euh, doxal dara ñaawul yaayam bëggunu lool euh, rek léegi di mu yónnee teraanga yu bari seen Cheikh Dione di ko indi mu yaawa jàll yàlla yàlla yokk fanam ak njabootam ak paamataar ak njaboot gi yëpp ndax rëy na ci ñun ndax ku lu yéegi rek moo la sonal ku la faaliwut ah yàlla kotta fi ne nag yàlla na yàlla dafa leen yiw dafa leen teraanga ma seeral leen ko ndax yéen li yéen man ngeen am man it yéen laa am ku ma teral ngir yéen ku leen ku ma toroxaloo rek eh, eh, seenu sëriñ la mu ngoog mu ngoog kon ma teg ci rek waa kër gi ñoo xam ne dañoo ne ci bitim réew sonn lool ndeysaan ndax euh, murit ba ne ba sañoon tey fii lee fanaan suñ mbokk yi ci bitim réew euh, ñaa ca gabon dama ndax pas-pas ak jamono yu naqari waaye lu sëñ bi yëngu rek ñu def lu ñu mën ak ñu mënut Guèye Cheikh ca Libreville ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko seeral sëñ Malick ñu ne koy seeral maanaam waaye taalibeem am nañ tawféex yi ñan nañ ju bari ñëw nañ jëwriñ jàkk ñaan ñëw nañ muy Mamadou Pen ak ñum ko àndal ñeen nañ bu waa euh, France euh, ci jëwriñ yéet Ibrahim Bordeaux ñëw na euh, teewe ko ànd ak ñenn ci ñu ñëw ñoom itam seen ña fa nekk sama ñaari baay yooyee ak sama jarbaat ba ñu jàmbaar lañ kenn mënu leen doon ñu bëgg ma leen sax muy sa yaboo Madiyaana Ñang boobu yi bàyyee Amar moom itam ak njabootu boppam gi ne fii Ibrahima ña ñoom ñoom ñëpp defaat nañu enveloppe def délégation indi seen teraanga sëñ Abo ñu ngi yónnee ne teraangam ak barkeelam daaw xam nga dafa ko fekkoon ren fekk ko fi. Euh, sëñ Abo Mariane Sène moom sama doom moom itam euh, seen liggéey booba ak mun Muntaxa euh, Njaay ay xale la yooyu am nañ pas-pas lool nag dama leen wax ñom yàlla yeb leen cat dugg mi am nañ lool ci kër gi lu yëngu rek ñu def tay xale la yàlla yàlla fay leen te yok leen te def leen mak te yok seen teraanga te bayu leen seen wajur ak seen mbokk ak seen xarit mali séral ko seigne malik ak ca amerigit it Abou Madiane Diaw tawfeex la ren ñëw na mu ngi jël moog Babacar waaye seen liggey liggey nañ na liggey Abou Madiane mo am tawfeex ñëw ak ñenn ca jigéen ñi ak ñu fa nekk ci Amérique Babacar seen liggéey Babacar Guèye seen liggéey ñoom it ma seeral leen ko ndax euh, ñoom itam ci njaboot gi leen lu ngeen nekk ña donte li ngi sori ak di leen bàyyi xel di bàyyi xel kër gi. am na euh, it ña ca ña euh, Afrique centrale nga xam ne Mali Mor ak Mor Guèye indi na moom itam ñëw na. ña fa nekk néew daje dajale ba jafe na waaye lii sëñ baay Ndiaye mi wax ca ndar mooy sëñ jafe waaye lañ am indi nañ ko du leen ko xeebal du leen soññ ndax yenn dëkk yi di ci xaw a gàllankoor mooy liñ fa demut amuñ ko ñu fa demal waaye am nañ pas-pas soññ gi daanaka day xaw a kii waaye yàlla yàlla defal ni tawféex yi man faa dem wala am ku ñu fa demal ndax lañ ko la fa nekk ci gi am nañ pas-pas lool waaye nag équipe bi lu mu bëri bari suur te amul entraîneur amul xaayit day xaw a doy waar moo tax loolu rek mooy seen gàllankoor waaye yàlla yàlla dafa leen tawféex ndax eh, di sant eh, soxna si eh, soxna Marème mi soppe yi Abdou Aziz wax na ko ndax bi ñu ànd ak léegi ñi 84 ak tey du benn bis te pas-pas rek lañ xam ci moom bu ñëwee ñëwut liggéey na fi ak soppeem yi ma àndal ak i bokki boppam ñu indi teraanga yu bari ci bë ci suba ak teraanga yi ngeen doon gis xam ne sëñ Bas Diakhaté yàkkam na ko lool ak sëñ Saba baa Seck yàlla yàlla fay ko soxna Marème ak say waajur alaaji Kabir ak soxna si yàlla yàlla fay leen yiw leen jàmm di ngeen ci yéen ci lu baax ak sa njabootu bopp yàlla fay leen yiw ñoom euh, soxna Cuka Ndiaye ca Gàmbi ak njaboot ga soxna euh, Ayda Soose njaboot gi ak ñëpp ma leen limee daal waaye sa soppeek sa mbokkeek ñi jàpp jàppal ñëpp ñu ngi leen sant ñu ngi leen di gërëm ndax taxawaay bi rafet na wax dëgg yàlla al yastawi lesina lesina mënul nekk ku yamale ñëpp rek tooñ yàlla ndax ki yéene defut boo ko yamalee ki def te yéene defut yàlla defut noonu yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo gën ñëpp fanaan na guddi di ñaanal kenn ci jëf baata laylan yaruumu lahu ridan sa tafdilu kubaaru koko jëf génné alalam dafa taxoon sallallahu Alaihi Wasallam. fanan guddig lam diko ñaanal lu mu ko doon ñaanal am borom bi subhanahu wa taala ngeeramul yalla kon itam ñepp ma leen sama raket di khadim bu bay bay jaaj njaay in xewul yu bare bare bare bare ndax at mu ne mu def ko tay day def sasam ca no boropi jënd gat jënd ci mu naa ko yow la xar ndax doomi jaaj bu nak daanaka nangam ak seen bàyyi kon fi daan jënd kon xaadim sëñ Malick yow mi guntam eh, nga santal ko dongo yi ndax li muy joxe joxuma ko dongo yi la koy jox ah, jën yi muy na ndawal gaag yëpp macha allah te pas-pas la koy defe ren sax xaw na wéré di waaye teewul mu sox def ko kon ñu sant ko bu baax a baax a baax a baax hmm. te ñaanal ko yàlla ah. Euh, benn mbokk ci taalibe ngi moom it xëy na gis boppam ci kuréelu gëm dëkk mu fi kuréelu Dakar mu ber kuréelam moom njabootam di yónnee addiyam euh, Assane Ka doomam yëpp lay forcé ci ñëpp biir réew bitim réew ñëpp ñu def leen ka euh, alal lamam lépp yónnee ko mu ne loolu nag seen biir parce que bokkoon na ci kuréel lu tax gisatuñ boppam loolu moom beneen biir la waaye daal ñaari at ak wala ñett moo njabootam dañuy dajale li ñu dajale yónnee ko loolu bu ngeen jàppe ko noonu ma sant ko gërëm ko ñaana ko yàlla yàlla yokk lii doom ndax teraanga ñoon def na ko jox na may daamar jox na may wat def na lu ne waaye tax bokkatul ci kuréel nag loolu seen biir xam naa mbiru idaare bu ñu waxtaanee ah dañ ci am solution ndax ànd bee ma gënal waaye gis-gisu bopp nag beroog sa njaboot it ah kenn du la wax dara bañ xam lu tax waaye daal moo njabootam ngi ne bitim réew bitim réew yëpp di leen soñ ñëpp ñu dajale indi seen addi maa ngi koy sant di jàmm ak tawféex ah, njabootu ah, ah, alaaj mbay mu seen jëwriñ seen magum taalib moom itam noonu lay def njabootam at mu jot leen ndax am na tawféex bu wut waaye day yónnee ca te bàyyi lu ca pap Modou Pène dina liggéey way teewul ni ne fi rek ñu war dajale lu ñam euh, indi ndax euh, mom nee na du wàcc ci liggéey toolu Sëñ Abo Mariama kon ñu ko ñaanal mu wër ak muccu ak njabotam ñom itam ah, ah, di soñit kurel yi ndax ah, di Ousmane wax euh, waluga am guñ tur waye njaboot ga bari ni fa tassarona ndax xeyna ngant yi ñam motax rek waye defe daayira bima ñëk samp gannaaw Dakar ah, ci la bokk te te it ah, ah, ñu am pas-pas ne ñu bëgg sëñ bi waaye xëy na saytu bi ak dem gi mooy suñ seen gàllankoor waaye defe naa ñu ngi ci ñaan yàlla tafeex sëñ bi mën leen taxaw ba ñëw fa ndax dañ koy daje kër Baye Guido eh, ni fi ñi ma fa xam rek dañoo bari man rek te may fàtte kon bari ngeen fa torop macha allah tool bi yaatu na fa xam naa bu ngeen defee pas-pas sëñ Ousmane yàlla dafa leen tawfeex te suñ mbokk ma eh, laa yàlla xaare ko àjjana defal ko xéewal ca barsax moom ba mu rëccu li mu doon def ci àdduna waaye sant nañ leen baax a baax dañ fa ñëw incha allah bàyyi xel di ñaanal it eh, mbay jonn eh, ak jaraa ak njaboot ga gépp waa kër sant daal ne sama benn wëllër rek seen wëllër di wëllër kër gi nag moom moom itam ñëw na fa ba sama kër indi addiyam motulaa mel ne ko daan jox wala mu jox kenn waaye met ma di keña indi na ma teraanga wax dëgg yàlla te dama ne ko yow lu lu sax loo ci indi rek mu doy tegul ma dara waaye dafa li muy xat-xat dafa sonn waaxu ba ñëw taal otoom ñëw gisee man waxtu deux heures de matin ak coono yëpp ndax mm, nee na màggal mënul ñëw rek gisuma kon sopp na ma jàpp na ma jàpp na leen maa ngi koy sant di leen ko seeral euh, seen benn mbokk taalibe it euh, bu bokk kër gi di tëdd si dëkk bi euh, di def ni ngeen def waaye def yi fi boppam nag muy Ousmane jàll ma santal leen ko ndax def na ñëpp def waaye nag féete na kër gi foo xam ni yàlla na ko fi yàlla féete ndax lépp lu mu dégg ma maa du dul wax dara rek waaye dem sëñ bi lu kër gi soxla naa ko yëg ma ko yëgee rek eh, def ko man dong la bëgg kon eh, indi na dara ma santal leen ko ndax li mu joxe joxe ma ko ci kër gi la ko def eh, ak li li def ci man ndax xartaan bi ma sol macha moom moo ma ko may ak lu bare bari kon daal ma sant ko ndax yàmbaala kër gi te engagement bi rafet na ma seeral leen ko sëñ Malick seeral ko seeral ko ñëpp def naa loolu ñaaw seen doomu yi wax Salif Diop it jàmbaar la xam na <laughs> ne moom itam ñëw na fi léegi ma màggal lu manqué waxaat ma ko ma ne ah, lépp mën na moom itam yàlla na ànd ak ay mbokkam te mbokk la yàlla yàlla taxawu ko moom it am na uh, njabootu ku bokk ci mare soxna mare njabootam Lamine Diallo moom itam benn njabootu boppam yónnee na fa ndox mu baree bare bari ndox mu naan yëpp ma ko bindi ma sëñ soxna see tax euh, li may jox ni ñi indi dëkk ci ndox kër gi moom di mooy ëppale indi def ndox mu bare bare bare ñooñu daal ñu ngi koy sant baax di ko wax soxna mbare ma xam nga yëgoon na goom deet waaw mais daal defe naa ci gàttal mooy mooy mooy mooy mooy mooy ñi euh, ñu waroon sant euh, ci buñ fàttewut kenn li ci des nag bu subaa incha allahu rabbi bu ñu yeew waa daayira yi ak kuréel yi ak yëpp di des euh, wiye nduur at mu nekk wiye nduur at mu nekk li ngeen fi gis si fur bi maintenant ren yokk na ko lool ñaar fukki kees bu naangi fur yëpp ma koy indi moom itam jàmbaar la ñu leen ko bu baax a baax ndax day joxe sasam ba noppi defaat leneen kon daal euh, bu amul kuñ fàtte ndax bis bi congrès la daje la bis sëñ Tuubaa la ñëpp ko bokk dafa yaatu sëñ Tuubaa dafa yaatu bu amee kuñ war ah daa bëggul koo sant moo tax waaye daa bëggul koo sant ndax inama anatum li wallaahi daa bëggul koo sant moo tax duñ ko faral tudd waaye moom li muy def at mu ne ma def ko nag muy indi at mu ne ma def ko ak kan ah soxna Xadi waaw moom borom bañam ak mat la moom itam waa moom de moom bëggul koo sant ndax ñoom seen euh, kuréel ga sëñ Mhm. Cheikh Mbow moo ko jiite ci Thiès jàmbaar lañ ñu ngi leen di euh, sant leen gërëm te aajana njaboot gi dooleel leen bu baax a baax ndax yaatu nañ fa suñu laaj taal ñu fa ñaatu te dañoo xaw a tasaaroo dem fa ba dajal leen boole leen ndax ñu mën a liggéey ndax euh, ñu am pas-pas lañ maa ngi wax sëñ Maguette Ndiaye ne ko waa Kajoor moo leen jiite woon mu ngi ma bëgg a expliqué waaye explication bi <laughs> xaju fi xam naa Kajoor it Abo Seyeg nii ak njaboot bari nañ fa waa bari nañ fa macha waaye nag xam naa euh, ku leen xaa it bu leen jiite mooy xaw a doon seen cat waaye ku leen soññoon njaboot ga bari nañ fa sëñ Maguette Ndiaye nag xam naa euh, dafa naa at yi day bëgg a bari wala <laughs> tayel waaye ñoom itam sant nañ leen baax baax ndax ñëwuñ mbooloo te mbooloo bi mu gënal waaye ñëw nañ kenn kenn ku nekk li nga mën nga def ko di sant ñëpp di gërëm ñëpp sama njabootu bopp ah maa ngi leen sant bu baax baax kon daal defe naa bu leen bu fàttaliwut presse bi ci leen nag ndax yaa ñoom ñi toog fii di ñu yóbbul suñuy jëf ak suñuy wax ñeneen ca bitim réew ak ñu mënta ñëw ñu koy seetaan ñu sant leen Aziz nga santaan waa 2STV ca kilifa ga ba ca këj suuf ndax ñëw nañ fële def ci rapportage ci suba fii ñëw nañ fii te it xam nañ antenne télé temps bi ni muy chéré ak ni muy jare te euh, am na ñu am tele te boolewuñ nu ci te noonu mënuñoo ñaan mënuñoo kii yàlla yàlla yokk seen teraanga yokk seen yow yow mën fa nekkal daal am nañ fi yeneen couleur yu bari nag waaye nga jot leen ñu sunu sant ak suñu yónnante waa télévision bi ñuy wax Acti Acti ñëw nañ fa ñoom def émission bu yaatu te dañ ma ne woon loo bëgg kii man leen ah, coono bi loo bëgg wax waxal mooy limité wuñ la ñoom itam Ibrahima Badiane ak ñoom ko seqal ki ñu bëgg yaan yàlla fay leen yiw waa Lamp Fall TV bàyyi bi rëccu nag nii ndeysaan sëñ Guèye eh, ak eh, Serif ñoom ñëw nañ fa def ci fa mm, émission te it xat na ci dëkk bi ci ñoom waaye dañ ne mënuñ séddale mukk te Abdou Aziz boo jotul wàllam kër Sëñ boo jotul wàllam ñun ni jël fa jox ma temps antenne bu kii euh, maa ngi sant jëwriñ alin Thioune ak euh, Baye Ibrahima mi ñu fa nekkal ak njaboot ga ñëpp ndax ñoom ca bokk euh, ak daal technicien yi ak sëriñ ñëpp ndax liggéey ba xam naa bu ngeen ko seetaane seen xol dina ci sedd ñu ngi sant ñëpp daal di nuyu sama télé bi ma jàkkaarlool ana ana ana ana <laughs> baara seen nu tudd baara nu mu tudd ñëw na fi lay yandu xam naa dafa dem naa tur bi nag nu mu tudd ah seen TV ñëw na fi ah seen TV waaw ndeysaan kon ah ñu sant kooku taalibe sëñ Mbàkke Maamad la moom xam naa xamante am naa fa ñëfa gisuma leen woon mm, kañ lañ fi ñëwoon numéro yi waaw ñu ah kon gërëm leen ñaanal leen njaboot gaa nga fa ah, Abdoulahi Lam ah, Peex ak technicien ak ñeneen ña bari nañ fay wëllëre ba ci oustaz ak sëriñ daara eh, uh-huh. moom de du doy wax ji de moom wax ku saw xel rafet saw yoon day dégg lu ñu fàttali rek RDV de moom <laughs> RDV sëñ Maguette Samb mu ngi nii eh, ak ak ak ak eh, baax laa bëggoon tëjee kay <laughs> waaw ñoom de sama xarit lañ muy euh, tra euh, communicateur traditionnel yi Sénégal seen tra euh, seen yi ñooy ñooy mag ñi sax léegi ndax mag ñoo ne sax bu njëkkee bi ñuy formé taw feex yi man lañ jaaroon mooy seen bunt fekk sëñ Sidi Maxtaar di sëñ Touba ñu ma yóbbu leen fa mu ñaanal leen ci ba tey suñu wëllëre nangami at at mu ne fi la ñuy ñëw bu tàkkusaane léegi dañu fi jóge ñoom alaaji Lamine Thiam Dogo ak gërmi ak ñoom ñëpp alaaji Lamine ba yaan yàlla yërëm leen ñoom ñëpp sama xar lañ nag saal yeeg ñëpp dañ maa sopp ma sopp leen yàlla yàlla bay def leen jàmm at mën nañu ñëw te dañuy toggoog soono yu ne te ku ci yëg dara fa nga nekk euh, da nga may taxaw loo mën ndeysaan maa leen di teg rek waaye bëgg nañ maa liggéey maa ngi leen sant te leen ko seeral di ko seeral waaw boobu moom sama bos la ñoom moom moom mën naa leen mu mujjee ndax sama liggéey nopp ñoom dama leen lu ma xew dañuy ñëw ba euh, ba ma jeexal ba ci ba ci ba ci euh, julli yaa koreek sama njaboot yu bari ci bitim réew ñoom la ñuy jàppale ko kii ba dem mbërki def ngi ko jox kenn euh, mu ne ma gis naa leen TikTok man loolu moom du ma ba jàppee sa Cap TV <laughs> na message yi ñuy jàllale comme damaa teg ci borom xam-xam yi di nga ci mën a jël loo kii waaye xam-xam moom amul solo ndax sëñ Tuubaa li mu ci fàgg mënuñ koo xam Euh, waaye euh, jëf ya rek am solo yàlla yàlla may leen seen télé bi yokk bari tele ndax ci laa bokk waa Cap TV ndax ñoo dëkk ci tuubaay Yëmbal boole kook di soppe boole kook di xar télé nu yàgg nag euh, di sant jigéen ñi sant góor ñi xale yi ñu daan jaan ak ñépp di am ci yaakaar di beesal sama wóolute ak sama yaakaar ak taw féexi sëñ Touba te waat yàlla na te ko yaakaar ne fii ku fi dugg saaj dina faju cër dafa am xaas xaas xaas xaas ndax xaas la nag nag am ngëb julit dama koy wax ma sonn oustaz ndax xam na laahu alil muminina isbaas fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakki wa kitaaba loolu xaas la yàlla na ko may di wax ne nag ñu bokkaat nag ah kullu muridin bi yelu siyasulu wa innahu min asaabu baxadu man dëgg naa ku koy tekki ne aaya boobu neexut ma ne kon lu neex amul rek sëñ Tuubaa ko wax te ragalul kenn nee na murit bu aju ci man lor dina la sori te fi àdduna ak àllaax di nga am loo neex ñi ma bokkal ñun ñëpp maa ngi leen ndokkal di leen siyaara muy murid di saadixi na bari na ci yoo xam ni sax ah, day kii jërul wax ndax ah, fi àdduna tool waaye doon murid tawféex la mel mag dañ ko ne li nga xamee sëñ Tuubaa di waxtaan ak li nga ci xam lu tax jébbaloo ci moom mu ne ko sëñ bi bu woote woon mu wuy si ci biir waaye daa tànn ci biir woote ci kaw kon nag ñun ñu sëñ Tuubaa woo ñu ñëw saw feex la am kon xaas la ñu duggaat ci bunt bu buntu bu rëy ci buntam bi muy Mouhamad Lamine tilkal amaana al amaana sawaja biha sayidatna xaaliya bi Mouhamadi rasulullah Mouhamadul Amin mooy kan mooy ki mu ne woon mooy ñetteel doomam ki mu mooy kan mooy ki mu ne woon Mouhamad Lamine saamam mooy kan Mouhamad Lamine ne mooy sa ndey Mouhamad Lamine mooy mu ne woon Mouhamadou Lamine saamam sëñ Tuubaa lu mu nangoo moom waaye moom ma leen foo ko tudde mënu saamam mooy kan mooy ki mu ne woon wa anna kulla man kaana mahaka laa yaroona ilaa ma yasurum fi dunya wal aaxira wa hum yadxulul janna bi xayri saabin képp ku ànd ak yow di gis lu ko naka àddina ak àllaaxira te buy dugg ak janna kenn du ko hisaab kon kooku mooy Mouhamadou Lamine Bara <laughs> dëggal leen ah nga dëggale day euh, ñu am tawfeex am suñ kër gii ci kër Mawone Lewin néeg bu tudd néeg Maulana Wuldu Souleymane ma Abou Mariana foofu moom doo ci mën a sori dafa ma <laughs> waaye nag nee woon na ku man turam doo lakk te ndigalam mbégteem sëñ bee woon mbégteem sëñ Touba woon doomi sëñ Touba yëpp. mooy tudd muy fekke woon da sëñ baar de dane sëñ bi ma jox ndigal ngenti wutoon ngénte rek waaye sëñ bi ko jox ndigal mu tudde ko màggal la ne woon kajoor di ngeen suur nawal ndax ndigal ku baax ki moo ma jox ndigal kon Mouhamad Abou Mariane boobee doonte ñëpp lañ sopp nawloo ñëpp bëgg ñëpp nag ndax man noonu lay dunde waaye suñ tawféex la ñu dëkk kër Abou Mariane sama benn sëriñ bàkk bàkk fii laa fekk muy sukk fii ma ne ko looy ne ah damaa dégg fii ku fi sukk ma sukk ma di ñaan ba dee ma ne sëñ ba neen fii ku fi sukk xaw ma lan kon daal te amoon naa naay may tax ma yëpp may sa moom Cheikh Mouhamadou Lamine Bara la di nuyu kilifa dëkk bi Cheikh Moustapha Sidi Makhtar ak rakkam yëpp ak sanu ñi fi desandi suñu bàjjan ak suñu doom bàjjan ñëpp ndax man ku ma xam ñëpp laa seqal yiw ñëpp laa seqal jàmm sëñ Bara laa bëgg mooy sama féeti waaye nag murid laa saadix laa yal na yàlla may nu nangul nu tamay nu fekk waat déwén te déwén dàqal nu ren barke sëriñ bi barke Seex ma déwén baara barakati yaa rabbana ina wa tatanoo leew yaak ma nees fon ilek yaa rabbana yaa rabbana yaa rabbana daanam ko màggal gi nag ñetti étape rek la xarat yow ma sab saamina ansan fii xen muxtaar fii saw safar benn ngoog ican ruju ilaa ak ban màggal gis ku sama mbég ti mbég sant leen borom bi fa fa laay ma sa groupe ah déet Saal danaan def bu soññee màggal gi soññe gàmmu gi moom de benn xeer la ndax ñoo bokk wenn weer kon maa ngi ñi ma bokkal kër gi te sañ leen a digal maa ngi leen soññ ci màggal gi fu ñu ko mag na màggalee ñi ma yilif nak mom maa ngi koy def ci Touba Yëmbal te beug ku man ñëw ànd ko fa ak man ni ñu ko daan defee inshallah rabbi اللهم صل على وسلم على نبينا بها من جمله ولا فرق بين من حد من سيرتنا بها عندك جاء وحنا بها من جمله خير عبد الله يا رب المال الله تعالى بالتهاري بالتهاري طول لنا عمرنا سهلنا بلد وهب لنا رسل وتوفيق الله وردنا كل شيء سامي سامي سامي سامي بارك اللهم صل وسلم صلاة نجنا بها ولا فاتت نبي وحيد النبي وسيرة التوبة في الحياة ورحمة كان يالمن كديوت بس يبارك تجاجيب